كلم جدك كلم الله الله يلا مومو امول لوخو امول لوخو امول تانك ليس لك شيء نيرو لك دا بولم لو غيس تي ادنا نيرو لك دا <coughs> لول موتاخ تي لاي بي يوم bu ñu ne yàlla ne la asamaan ak suuf ci juróom-ñaari fan juróom-benn fan mu lëpp nu ci septième jour kooku pour ñu dëkk ko rek la mais yàlla mu ne nekkal mu nekk kon fa yàqu kon lu sens propre sens figuré yàlla boobu mooy allah ayatul kursi am naa bu jógee suba. nga ya julli aaya bi te jang jàng tan kursi yalla dina la bolé ak juróom-ñaari malayka yu lay aar doo de ci becc bi do dekk loo bañ do gis loo bañ doo xulu doo xeer comme man ak sàmm lu dëkk nii mooy allahu mooy jàll jalaaluhu wa azza kamaaluhu laa ilaha amul ben buur bu ñi jaamu ci dëgg illaa huwa xoolal bu wéy mu ngi doon kay laa ilaha illa huwa laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum la taxuduhu wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi l-ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو بعد غرق لا اله ابو البل قرب جيجام جدب الا هو كل الوضع. يلا كو اجي الحي ku dund la yàlla du dee nga amoon mu commencé amoon fu mu yem ana loo dem ko moom it ne ko bii ala sise dem na ana baamu dund dem na ana lay ci fay dem na ana bàyyi tam dem na ana maama Badiane harasa daga jai bodon no wani kama mai dabbe alam alam wani bi ta ko da kabi da no ba da kon jalla ko aji al hayy ku dund la te du dee nit loo xam avant nga ñëw xamoo ci dara après toi xamoo ci dara yàlla amul avant amul après alxayu ku aji dund la alqayyoomu waaye kuy toppatoo lu mu bind la mellentaan ak njay bi yaag nit yaag cinne yi yaag jalaaw yi yaag i insecte yi yaag yooyu moo koy toppatoo dundal leen amul leneen lu mu bind ko alxayu alqayyuum alqayyuum mooy ku mun a toppatoo lu ku dëkk ci ñun balaa nga yow ba ci lu muy coow bi yëpp wax de pas rek waaw la di wuti dara ñu leen day sant mu versé demal ba versé toog ba loolu lay carrière carrière yi ñu def yëpp ah Thiel être le directeur d'école ak écoutez-moi taisez-vous wax nga ngeen leen léegi dañu ngi toog mel na lem suñu nekk la alka yóbbu laa taaxuduhu yàlla moom laa taaxuduhu sinatun du gémment gémmantu am lu mu yàqu ne gémmantu la ba tey bàyyi lu mu bàyyi fuusam ne gémmantu la ba tey waxtu lu muy def ne gémmantu la ba tey wala nawm yàlla du nelawul gémmantuwul nelawul ولا دور له له يلا كموم له يلا موم ما مولم ما في السماوات لنكتي أسمان وما في الأرض أكمولم لنكتي بيوسف يلا كموم Kita mau cekar sejak mau cuci, fee ma kau mau, fee ma kau mau, kau lo mau, يو أكلنا وغنى ياكم يبقى يلا لهم له ما في السماوات وما في الأرض يلا لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يوم القيامة كان موي وقت مخلوبا من ذا الذي كان مو خمي يشفع عنده لقى وقت إلا بإذنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أول الناس قولا إذا مرسوا وأنا قائله إذا وقفوا وأنا مستشفع إذا مرسوا وأنا مبشر إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح هي بيدي أنا أكرم يدي يقول من أول أيوة. جواب فيسمع لدي kenn du wax yow man gi yaama kenn du wax te wax loolu haruna demal amma yatasaaluna laa yatakallamuuna illa man adina lahu rahman wa taala durum fukki jooni lañu ñu ko la ka yaa yore sa dossier xamoo aljana nga jëm xamoo sawara nga jëm cinquante 50000

wa ana qaiduhum illa wafadu buñu ñu départ di dem man may jitu tout derrière lui sallallahu alayhi wa sallam wa ana qaiduhum illa wafadu moom la raj malik sallallahu salatan wa tasliman ala qabari min nurihi khuliqal aqwam yallahu wa yusallu ala sajidin qabla al-wara ala sallam مولى شيخنا أحمد بملين قوته قبل البرايا قد انشرت له السبق هي الجد في الدين يذهب وبيتي مقدمة الأبداع في مطايا المنطقة مولى خليفة محمد من نوره كل بدر يبدو شمس الزمان لولاه ما كان كونه وبدون رسول الله ادنى الرب على اخر الرب أجر الرب در الرب لولاه ما كان كون إذ كان عين الكمال فهو المقدم حقا في مولانا جی ابراہیم جسن محمد المفتاح الفتوحات سید الخاتم سر کے حسن خاتمہ کو رسول من المولا و آدم النبی رسول اللہ ایمان و عبد اللہ و آنا قائدهم تنتل جس سنتل جب سنتل تا سنتل سی سنتل تو دریل یپ چکر مملو شخصان و احلی قلو نبی یوم یبعث البشر تحت لواء المصطفى قد استقر يا ليتني كنت ترابا عليه وليت الله yàlla bi moo la gën boo ko mu baal la boo ko ñaanee mu may la ashhadu an-naasi kaffan wa ashrahahum sadran wa alyanahum alika musul am xarit bàyyi xarit ba man raahu badahatan rabbahu wa man xaaladahu maarifatan rahabba boo mosul gis yonent Muhammad boo gisee da ngay waar da nga def ne jinne nga gis ngir كوكو يلا وهو النجم إذا هوى وما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهمها علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدرى فكان قاب قوسين ليس فأوعى إلى عبده ما أوعى ما كذب الفؤاد ما رأى يونس بن لوح ماكو وقت المدب دكورنا رك لا يلوح yashfa'u indahu kenn du wax lu man ku ñu jàpp séeréer bu sawara bu ma la peleenalee nga kiite <laughs> tukulóor bu ñu bu tiit ak am njaqare boo gëstoo gis yonent Yàlla Muhammad nga fanta sallallahu alayhi wa sallam wa ana qaa'iduhum idhaa waqafu wa ana xabiiruhum وأنا مستشفيهم إذا خفصوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا boo demee bay tiit dëkk nga gëstu gis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam oustaz waaw da ngay tiit yàlla yaalamu xam na ma bayna aydihim lu ñëwul xam na ko wa ma xalfahum lu passé xam na ko mooy xam na sa garaaw xam na sa kanam wala yuhiduuna bi cheyin min ilmihi nit ñi xamuñu dara ci xam-xamu yàlla min ilmihi wala yuhiduuna ay wa xamuñu dara bi cheyin min ilmihi ci xam-xamu moom yàlla illa bi idnihi lu dul lu mu neex rek ñu xam ko alizé yi am na depuis ba mu aadama ولا يحيطون بشيء من علمه يجي خبر دار دار دار دار جسم خبر يلا لمن يخبر وما أوتيت من العلم إلا قليلا li ngay xam xam xam tuuti la ci li ci deux cent cinquante cinq laay bi ci ayatul kursi wala yahuduhu du sollal yàlla yàlla du sollal hifduhuma garde juróom-ñaari asamaan ak lu ci nekk ak juróom-ñaari suuf lu ci nekk ku wala yahuduhu yàlla dama sonn ci baati li ma bind man yàlla yow wane ki yàlla al aliyu mooy aji kawe al azimu mooy bu mag laay ayatal kursi jeex na mu ngi commencé ci allahu mu ngi jeexal ci al aliyul azim ci tur yàlla la commencé ci tur yàlla la ووفر عليه التلاوة شيخنا التجاري قال بلاغ استغفر الله العلي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إكراه أبو الفرس في الدين li ma nekk nekkal nekk kenn du ko def laa ikraha fi diin ala ñu bari bàyyi ci jàkka yi bàyyi ci jàkka yi bàyyi nekk ci seen kër yi tëdd la kenn du leen wax laa ikraha fi diin amul ñëpp dañu nekk catholique wala ñëpp dañu nekk jullit wala dañu nekk lii dañu nekk laa laa ikraha fi diin amul force yonent bi sax benn xare la xare amul fenn fu mu commencé di xeex lu dul ñoom ñoo dafay défendre boppam boo ñëwee bu nga xeex ak moom mu jóg vingt deux xare yëpp amul fenn fu mu commencé xeex pour nit ñi dugg ci biir la ko diinu ko waliya diini yéen a ngi fi ngeen man maa ngi fi nekk lislaamu leeral la ak jub binal ak jub fabal yakfur boolem ko weddi bi daaxuut nga weddi xërëm nga weddi bokkaale wa yu'minu billahi mu gëm yàlla kooku day faqad istamsaka mooy na faqad istamsaka jàppana bil urwatil wusqa film bi pour wante mooy fas takkee bu nga takk fas bi mooy rowa kooku ta nga ci ci fas xam ne du rëccee bi rowati wusqa lan fi saama du rëccee wallahu dik yàlla samiun ku aji dëggal li ngeen li ngeen ku aji xam allahu yàlla mooy waliyu ladina amanu waliyu mooy partisan partisan réew mi lu tax kenn mënut wax dara par par yi dafa bari ko wax rek feeñ kenn du wax kenn nag waliyu mooy partida alladina ñi nga xam ne amanu gëm nañ yàlla yuxrijuhum dafa leen di génne min azulumaati ci lindam ila nuuri mu yóbbu leen ci leer yuxrijuhum dafa leen di génne min azulumaati ci yéefar ila nuuri ci lislaam walladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañu yàlla awliya'uhum sel waliyumul abdaru woore sacré fii ay lege def ay suuf jap ngeen sànni picc raawam loolu lañ gëm tarjin jille marjin jille ko ala bi video tako yi ngata takam jinde jibina bu guru jibina be les wala bin no ne les jambe gam dogon jambe loolu lañu gëm jat ñeet balaa nga tukki nga jël ndox bu sedd tuur ko ci pono oto bi loolu lañ gëm xam nga ñu ñuy jàng tuuti lasraar tëgg ay bool di tëgg ay ciwaar ci réew yi yëpp boo xamee dëgg dëgg dëgg loolu munoo koo dëppal boo dee teg il faut nga nga dëpp tuuti bu fekkee daa ne bi yëpp région yëpp quarante cinq région yëpp ku nekk dafa dégg bool dégg bool fecc moo tax accident yi ak deret yi bari waaw li man xam naa dama yaay xam ba la yor waxtu dëpp il faut nga jiitu bu nekk ñuul wala ay ganaar boo leen rendee ba pare nga door a doon mais yow ren boo bu ñu gisul dara accident yi bari sëriñ yi lan lañu dox يخرجهم من النور إلى الظلمات dañu am ku ñu yaakaar ak lu yàlla hum ñoom fiiha ci si biir sawara xaaliduuna ñu aji sax la te du ñu génn boo duggee ajala ba nga dugg sawara ñu sot ne zandu nekkoon fii ci àdduna di xuloo ci jàkkaar yi di xeer tam bàcc dana toog rek nag wala oustaz oustaz bi oustaz bi ko ci ajala yàlla na maanaam ridwaan mooy directeur général di am Malick ak ridwaan ridwaan mooy gàtt mooy directeur général ale mooy Malick mooy directeur général bu Sawara mu ne danaa wax lu mu danaa ko wax Moussa Diatal Moussa Moussa ñu ne ustaad mu ngi ci jahannama boo ko buggee gis parce que foofu sa dugg àjjana doo xuus ci sawara di dem sa xarit ku dugg ci ci ci sawara yi doo xuus dem seet xarit moo tudde ko am na terrain boo xam ne du sawara du àjjana foofu ngay taxaw ñu ne sa xarit bi nga doon seet moo nekk man su ma jabar su ma jabar sa jabar bu ngi àjjana bu yàgg yaa ngi sawara ñu ne dëgg boobu gis da ngay taxaw te heure bi c'est limité boo paree ñu ne la cinq minutes nga amoon jaar al-araf makaanun du ajala du sawar tere être la foofu ngay taxaw ñu walla sa jabar walla say doom walla sa sëriñ bi nga doon jàng du teg ba teg ci baaxoon mu ngi sawara bu yàgg Cheikh Tidiane nee na rubba zaa'irin yuzaaru na ku ñuy ziyaara boromam maa ngi sawara bu bari na kuy ziyaara ku ñu war ziyaara mu ngi ci biir oto bi Cheikh Tidiane rang na amu sangu Moussa Mbour moom la Abdoul Aziz Sy tuddee toolam bi ci gannaaw kooku bon borom baa nii laa Aliou Sow la bu la ñaanalee nga am bu may yàlla yàlla wuyu ko ko ñaanal ma mu ngi ci Maroc Grand Atlas Baray la nekk amul ndox amul dër kenn du kenn du gis fu mu lekk naan kenn du gis fu mu lekkee kenn du gis fu mu naan. Cheikh Ahmed Tidiane bu jógee ay جمدہ پاس پہ زیادہ مولا ادریس اور وہاں پر اللہ کو بس اور ہم صبح تل شبہ تجا دے صبح تل نہیں اس کو رامی ہاں، لیکن آپ نے جب سمجھ آئے آپ نے جو فران یک پھو اور تک کچھ سب تیس بار لائے رہا لازور ایک سی سی صبح تل اوز سب آتا آمدہ تجا مجھے کسے ma'aujizun ma'aujizat ta sai muka ta jani da yau daga daga an waje sun turo an waje sun wasa ta da musu bala mu da yau na duka tipi jirgin yari an da mawara da ya, ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya lalaka fi am na ñoo xam ne seen fan dafay jeex mais lu ñuy def ci lu baax di wax lu baax day leen di prolongé yamhu llaahu maa yashaa'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitaab laay baax gi malakul mawti mënul yem xam-xam ci jaamu malakul mawti yëpp mu ngi yore suñu dossier war a dee tey yépp gis na ko xam bu ko ree pare mu demee sept bu demee sept jours dina dem ci yàlla ne ko ah ñii day ñoo war a dee tey mu ne la ah déedéet Moussa mii Samba Diagne mii moo ko jëlee léegi jàkka ji moo koy bale moo koy defar moo koy kii mu doon dem léegi mu prolongé yamhu llaahu maa yashaa'u yàlla bu neexee mu farlu bu bindoon wa yusbit bu ko neexee mu confirmé ko wa indahu ummul kitaab bi man yàlla rek maa xam sama jaam kañ lay dee fii Abu Sangoor xaar na Cheikh Oudar Ahmad Tijaani juróom-ñaari at bu ñu gisee mu mu ne ko yow dee nga gama mu ne ko yow laa doon xaar. li yore yoree ci lasaraan yëpp ya ko wara a jël yontu yalla Muhammad neena daga daga nanga naa la xaar da ngay léegi kon fi il faut nga dekk fi ñetti fan parce que man par trois jours lay rasulillah di may feeñu chaque da Tidiane ne man weesul naa suma bopp danaa gis rasulillahi 70 fois par jour dañ do dugg juróom sallallahu alaihi wasallam xamante ne dañuy xam xamante ne bu jox ko Cheikh bu dee ko yaa may bu julli tisbaar rek am mbaa des ñu ne bi sëriñ bi dee na balaa walaata baat boobu boobu doomu mu nekk nit taxawee ba pare waxal am na benn gan yi nekk am na tijaan yi la nekk na ma jullee boobu da dikal tijaan dare yusufu wati mamshakuna ahmad atijani wulaale suuf la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci loxo bi ne ko anta waladi anta waladi anta waladi daa il kutuba wal awraada wa dalasil mudarsala ana shehu wa rabbika yow yaay suma doom yow yaay suma doom ku la bëgg bëgg naa ku la bañ bañ naa livre yi ngay jàng ak lawraat yi bàyyi ana shehu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 حمدك اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية والياقوتة المتحققة في الحائضة ببركة الفروض والمعالي ونور الأكوان المتكونة لا صاحب الحق الرباني البرق الأستعيب من دون الأرباح البالية لكل متعرض من الظهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كرة الحائضة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى بها وروش الحقائق عين المعارف اللهم صل وسلم على بلعات الحق بحق الحق العظيم افادتك منك اليك احاطه جل المنزل صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوت كبر اجنيا فوت كبر اجنيا تري يب فوت كبر اجنيا مو فانا كتي جوهرات الكوارث لو شيخنا أحمد التجاني كنت أنا لو لوند أم نكو لوند يرسل كيس نكو أم لا بحر دريقة التي تفيد من ذات سيد الوجود تتلقاها هوات الأنبياء وكل ما فاز وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي وبها يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النوم cent vingt quatre prophètes yëpp lu ñu am ci yàlla dañ koy sànni man maay démateur bi man samadati kenn du nekk wali di ñëwoo ci man قطب الأولياء إلى الفيوز التي تفيد بالذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء ما وكل ما فاد وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي كويستان كم تلفزيون dañuy sànni photo yëpp dañ ko sànni jiital ko bu émetteur bu antenne bi ñëwee ñëwaat ko ñëw nga gis ko mais dañu ne ko jiital exactement mu soxla mooy naan boobu la soxla Tijaan di kontaan léegi da am na tariqa même dëgg nekk na xaaral yi juróom-ñaari at muy maye ku muy maye di maye nekk na nasabaan yi na nasariya kon yuxrijuhum min adulumaati ila nuur xaaliduna fiha fuñ fuñ toll alam tara ila <laughs> alam tara alif bi laaj foo gis a ah, alam tara kayfa faala آنخ آه، آمل آه، في هل هل هذا حضر محمد هل هذا كذا وكذا لا فوقش هل قال إلا كلمة ليس له hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ay laysa jazaa'ul ihsan illa al ihsan ku la defal lu baax waro ko fay dara ludul lu baax hal wa man wa in fo le gis ga gis illa ci kalam laysa la haaja werante ibrahima fi rabbihi an ataahu llaahu l-mulka yàlla jox na ko mulka iz qaala Ibrahima rabbi alladi yuhyi wa yumiitu Namruud Burkanaan Namruud Burkanaan la dafa nekk ci diine moo xam ne Ibrahima yaa baayam dafa doon jaay ay buum ay ay ay ay law yi boobu lu ñuy yett. statut statut. loolu ay ay. statut nga nga yett bant boo xam ne bu mel ni jigéen. nekk nit wala ñu mel ni waaw mooy statut. c'est ça antiquaire antiquaire. objet d'art la objet d'art. voilà léeg-léeg ñu jël yett. ci ay yaayam baayam dafa doon yett mooy ba di ay yàlla baayam moo doon yett ay yàlla di ko jaay sculpteur Labroode bun Kanaana dem ci baayam ne ko yow baay yàlla boo ne danga koy yët sonn ci loolu di nga jaay delluwaat di ko waaw yaa bàyyi loolu nag loolu doo ko seet loolu loolu la xel la Ibrahima topp leen di leen critiquer di leen critiquer bay boole ko ak buur bi renseignement généraux boole ko ak ñu jàpp Sayyidina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam at bu nekk dañuy génn dëkk ba yëpp ak buur bi ñu jaamu ji xërëm bu gën Ibrahima Baye ba dem dugg ci jàkka damma seen yàlla yooyu yëpp bàyyi foofu benn yàlla moo xam ne moo gën a rëy jël benn semmiñ bu mu daaj bu mu daanelee ñeneen ñi wékk ko wékk ko salaam boobu ñu ñëw fekk affaire bi toj na ñu lekk ko toj parce que Ibrahima du wax ci ñun lu baax du def lu baax dafay ci kër du def lu bunt bi woo Ibrahima Ibrahima confirmé ko leneen li ngeen lii jaamu amul benn li benn bi ne ku ko toj ku toj ku toj suñu yàlla mu ne ko laaj leen yàlla bu gën a gàdde moom moom kay di ngeen baa ngi dégg ma mu ngi gàddu sëmiñ ñu ne ko eh, xam nga ne yow yow kuy yàlla

qaala nabaruudugul kalaala ne ana man uxyi dundal wa umiitu danaa mu woo ñaari ni kii mu rey ko kii ibrahima ibrahima wax fa inna allaha niki yàlla yaati bi shamsi min al biha min al maghrib léegi daal suba yàlla moom depuis Adama day fenkal jant bi penku mu yóbbu ko léegi nag dafa contraire yow jant bi fu muy fenkee ak fu muy sooyee léegi dafa contraire bi na fenkee fu muy fu muy sooyee mu sooyee fu muy fenkee ka penku lay jant bi sama borom penku lay lay lay lay lay lay jant baati bi am na maghrib yow jëlal jant bi nga saw nga nga nga fekkal ko soow fago hita waaru na fago hita réer la fago hita gëlëm na alladi kafara wallahu nekk yàlla laa yaadi yàlla duñu woon al qawma zalimin beneen laa ngi nii أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Jangan ramu dikebiya pude, nagaya, bayya, kuleka cikiriya, ini agini, dia pude. Aku kan lagi barra ala karya. Jangan ramu dikebiya pude, wa hiya khawiyatun ala urushiha dara yëngatu qaala allah yuhyi haadihi yàlla na muy dundalee yàlla mën na dundalaat nii wallahu ndiki yàlla baada mawtiha fa amaatahu llahu meetu adam comme que wax na loolu yàlla mënu ko dundal yàlla rey ko téeméeri summa baatahu mu jógloo qaala yàlla ne kam labista ñaata fan nga def fii ci tëdd fii qaala labistu yawman aw ba'da yawmin man xaw naa fi yàgg dem naa ne jour la ak deux ne ban labista bee tubaab bi téeméer yàlla nga tëdd fii te dundal naa la aw ba'da yawmin qaala bal labista bee sowaatal ilaa da amika sa ceebu jën bi seet ko ndax changé sa fonde bi ngay naan seet ko ndax changé lam yatasanna wa iza lam yatasanna laaj ko ndax ënn situde seetal sa bàbbale mu ngi doon taxaw téeméeri at mu ngi fii dee wali na jaanaka boo gisee ma def loolu wali na jaanaka ñu defal la aayatan kéemaan lil naa si ñeel nit ñi wanzur ilal idaami kayfa nunsisuhaa xoolal yax yi man yàlla naka laa koy defaree tànk ya mu commencé bu mu defal tànk bi falyaqi mumureko ayyaku mumureku addar ثم نقصيها لحما ودفتي يق فلما تبين له قال أعلم خمنا ليك أن الله نك يلا على كل شيء وإذ قال إبراهيم رب أرني yàlla woon ma kayfa tuxyil mawta ndax ngay dundalee ku dee qaala awalam tuumin ay yow Ibrahima am nga sikki sàkk ba tey nga di ma laaj kayfa tuxyil mawta ndax ngay dundalee ku dee Ibrahima ne déedéet malkay kay mu naan mais ni yat yatma inna qalbi ndax ma gina wour ma gina a assuré nag jaam yàlla moom yalla yàlla ne ah, a ba tey am nga sikki sakati man yow war la ka bëgg nga do kaa nga jul Isxaaq jul ya jul ayo jul Zulki yonenti yeb yow yalla ba yaangi am sikki sak ndax man mun na li wala mun ma lii ليطمئن قلبي قال فهم jëlal arbaatan ñeent bi na day ci picc yi jëlal ganaar bi jëlal picc bi jëlal naat jëlal ganaar jëlal li mu rey mu suqi mu lakk mu ne walal ñu wol mu wol ko bi mu nekk

jël fii nga def ko ci ci montagne bale bale nga def ko ci montagne bale nga wone summa uduuhunna wooleen yaati naka daañu ñëw saaya di taw wa alam xamal an allaha azizun hakim yàlla ko aji tëdd la yàlla ko xëriñ la masalu ladina ñi nga xam ne lu ñu niroo masalu exemple alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi yoo xam ne dañuy jël seen alal di ci def te yàlla tax ñooñu ko masali xabatin mu ngi mel na nga jël benn dugub benn pepp dugub nga ji ko bu demee damu focc mbool ba ni mu doon mbool la ah ñaata ñaata moo ci nekk ñaata pepp ñaata pepp moo ci nekk te yow benn pepp rek nga ji yàlla ne kuy lu baax di wax lu baax loolu kàlla bi àll bi anbata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba léeg-léeg nga jël benn pepp def ko mu def ñeenti mbol. léegi li tuub bi dafa métti am ba lu ci nekk mën na téeméeri perte wallaahu niki yàlla yu daal di dana multiplier di man yashaa ku mu soob wallaahu niki yàlla waasiu yàlla ku yaatu la alimu ku xam la. alladina yunfiquuna amwaalahum ñi nga xam ne dañuy jël seen alal ko. ثم ma يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى dañuy jël am na ñoo xam ne lu ñu la defal bu yàgg-yàgg ba ñu nekk bu dul loolu la yàlla ne laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal man bu ma nekkee ci problème bu ma ne bul ko bu ñu ma naree tëj ay cinquante mille francs deux cent cinquante mille wala deux millions nga dimbale bu ma xuloo ak yow ba nga ne ko yow keroog bu ñu la jàppee bu dul loon man boo ko defee li nga defoon yëpp yàqu nit ku baax du def lu baax di ko wax man lan maa man nan wala adan du ñu wax bu dul loon man wala adan lahum ajruhum ñooñu am nañu pay yàlla rabbihim wala xawfun alayhim ñu ngi tiit yawmal qiyaama wala hum yahzanun qawlun wax maarufun baalaate xayrun waaye moo gën min sadaqatin nga sarax ma yatba'uha adan nga topp ci ci wax bu lool man keroog li mu la dimbalee yow da ngaa korewul yow lii yow قول معروف ومغفرة خير moo gën a baax wax yu yiw def lu yiw xayrum moo gën a baax min sadaqatin ak sarax yatbauha adan dëpp ci wax ku def ba ca loon man wallahu ni ki yàlla ganiyun yàlla ku doylu la ganiyun yàlla ñëpp moom lañ yaakaar te yaakaaroo ci kenn ganiyun xalimun yalla ko mun a muñ la ah Ya ayyuha alladina amanu mu ngi nii yéen ñi gëm yàlla ya gëm rasulaay waaye yéen laa tubdilu bil mani bu sara xet be pare def lu baax jox ma mu bëgg mo munul julli nga jox ma wala nga jëndal ma xaar doo taxaw fi nga rek bu doon man do am xaar sadaqatin bil manni man ni mooy bàqu man ni mooy danga maam du dul loon man keroog bi ñu la toroxalee du man wal ada kalladi yunfiq maalahu riyaa annaas mu ngi mel na ki nga ne lu mu def rek pour nit ñi gis gis tal dafa baaxul boo ma yoree boo boo ma tuddee jàng ma ñëw la enveloppe deux cent nga xotti nga ne ko yaa ko rek yow man qiyaamati dama wax ne koy joxee da nga bëggoon ñu wax wax nañu ko nit ku baax da ngay dimbale say mbokk te doo wax yow man qiyaamati yàlla dina koy multiplier mais li nga doon def lu baax laa tubdilu bu leen yàq sadaqaatikum bil manni wal riyaa annaas muy mel na ki nga xam ne lu mu joxe rek pour ngistal ngistal baaxul moom yàlla nee na waylun lil musalliina yawmal qiyaamati gaa yi nekk ci jàkka ji laa yóbbu sawar waylun xuur la ci ajal ci sawara liman lil musalliina gaa yi di julli di dem ci jàkka ji guddi ak bëccëg suba ak sawara lu yuraauna lu ñuy def gis talla laa ilaha illa allah yàlla bàyyi ñu dul julli duggal ñu dul julli pour adad riyaa annaasi gis tal baaxul riyaa annaasi wala yuminu billahi bu muñu yàlla wal yawmi al axiri ak bis pencu ka mithlihi ka mithlu safwaani mu ngi mel na nga jël safwaan safwaan mooy ay xeer xeer bi ñu nga def ci turaab nga jël suuf def ci fa asaabahu waabilun mu taw taw bu bëri ndax booy lëggee boo ñëwee ci xeer bi danga waa gis suuf déedéet xam nga lu yóbbu suuf bi daw xam nga lu yóbbu li ngay def lu baax wax wax bi yóbbu fa mislu safwaanin fa asaabahu waabilun fa tarakahu saldaa mu bàyyi ko mu nekk mu ngi ko laa laa yaqdiruuna alaa shay'in mimmaa kasabu kenn mënu dara moo tax yonent bi nee na am ci nga ñàkk ci dignité moom ngir nga am ci humiliation nit ku baax day bañ day gis boppam mimma kasabu mun na ko dara diri ala shay mimma kasabu wallahu nek yalla ya la yahdi yalla du jubal ko ومثل الذين ñi nga xam ne ni ñu niroo alladina yunfiquna amwaalahum dañuy dépassé seen alal dañuy saraxee ci seen alal ibtigaa mardatillahi dara dugulu leen ci lu dul lu neex yàlla wa tasbitan min anfusihim ñu dolli seen ngëm kamasli jannatin bi rabwa awwaabin ngay bay bay nga nga taw na focc na léegi commencé na di di di di focc waaw di def ay nga bay benn pepp gerte nga jiwoon léegi affaire bi law na am na ay gerte yu jeex loolu mooy nit bu baax lay def da ngay def lu baax te doo wax di fay. fa in wallahu bima ta'maluna basir ba yéen yàlla nee na ayawaddu ahadukum ndax kenn ci yéen bëgg na an takuna nga am tool boo xam ne focco na dara la ci ludul na xiili ci tàndarma wa anaabi ak raisin tajri dana tap dana daw min taxti yàlla xaar ci suuf rivière ay ay ndox ay dég looy daw fii am ko di sambaat waa asaabahu kibru mu dem ba mu mag màggat na waa asaabahu kibru wala am na ak njaboot dox fa amuñu dara fa asaabaha i'saaru tool bi focc na dara desul lu dul te moom mag na njaboot la am mu dee ya xale yi ñuy yaakaar góob affaire bi mu tax nga ñëw laaj yow dara focc ndax bu ngeen loolu loolu ah ah mu lakk kadhalika ni yubayyinu llahu lakum al ayati yàlla mu ngi leen di leeralal kéemaanam la allakum tatafakkaruuna bàyyi leen gistal gistal baaxul ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min naxiilin wa anaabin tajri min tahtiha al-anhaaru fiiha min kulli samaratin wa asaabahu al-kibru wa lahu durriyyatun da'faa fa asaabahaa isaarun fiihi naarun faatarat يا أيها الذين آمنوا يبنيكم يلكم رسول الله أنفقوا نغن سرخي من طيباتي يلا ورفقا ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض génni leen dugub boo def dindi asak dindi lu baax moo doy saraxe seetal li nga gën a nga génnee ko wala yamamu bu lamb wala yamamu bu leen tànn alxabiisa yére bu xotteeku bu lakk minhu tunfiquuna kenn ko nañ ko saraxe yàlla yow tuuba yi bu mu lakk ñu ne boo solee lakk day tëj gàllaay nga ne ko dañu ko jox yàlla yàlla ne li mu koy doyee yow bu guddoo ba amul poos loo ma koy walastum bi axidihi bu ñu ko joxee du ngeen ko nang. ngeen bëgg ma man yàlla ma nangu illa an tu'minu fihi mën nga jël yére yu baax nga boole ko ak yu bon ma jël mais lépp lu bon nga taxase ko ci kër gi sagar yi nga jox ko jox ko li ma koy taqulubu fiihi wa alamu na ngeen xam ak Allah ni ki yàlla ganiyun yàlla ku am ko ganiyun ku doylu la ganiyun soxluwul kenn ganiyun ku am moom la hamid asheytaanu seytaane mooy jinne bu nekk ceddo bu gurmën yàlla mooy seytaan mais jinne la Shaitan mo lay mo mo mo mo mo dobro ni. Shaitan mo lay u anda ai tu ya hande mo aduna ni ko mo No, no, no. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Amen. Amen. Cheikhan moom nit ak jinne boo ma xalaat tuuti sa wol bi jinne jinne am na boo jébaloo jullit muslim boo jébaloo wul yow kaafir kon Cheikhan moom it warul loolu kooku mooy seytaan seytaan mën na nekk mbaam mën na nekk soppeeku xar mën na soppeeku muus mën na soppeeku garab loolu mooy seytaan seytaan nag moo lay tas seytaan mooy bàyyi benn guddi te mbooloo seytaan du mbooloo ci ne ku mu jommi rek téete sa kenn mosul gis bu bu bu dox seen mooy timis ci la ñuy xëy seen kër kër bu rab arménia guy yëpp daxaar yëpp mbalit douche foofu la ñu seen heure dëgg dëgg mooy njolloo ci la ñuy wax timis njolloo bu ñu dajee ak yow bu gën la jóg bi dañuy def pot eh, waaye pot ba jël pot buy wax baa ñu wax ak yow mel na li nga ne doyal na ñu sëñ nekk la kon doole ji ne Abu Hurayrata wax na affaire yi jinde nee na man maa doon wóorul tamit ak maanaam alhamdulilah bu dee dem tool bi toujours da nga koy damay mag bu nekk ci yoon mu ne trois fois mu ne mu am benn ma teel a dem ma fekk muy sàcc muy sàcc dara bu boobaa wax na ne ma nekk sama bopp troisième jour bi ma jàpp deuxième jour bi ma jàpp bu lay troisième jour bi ma jàpp ma ne ko dèjà la wax mu ne te loolu dina bàyyi ko wax ma loo xam loo xam ne ñoom seytaane yi yëpp ko jàng doon mus dañu lay daw mu ne ko aayatal kursi aqul huwallahu ahad aqul bu jàll dem ci suñu buntu bi ndax ma bëgg koo fay mu dem ma bëgg a dugg ma gis ko mu tax. ma dugg fekk suñu nekk tëdd mu tiim ma ne waaw ah, yow tuddee naa ne. <laughs> mother who took you were a good deal, did you? te jéem ko. te moom gën a. ma yeewoo dem ci sa benn comme que borom fàmm ma yeewoo ma ne ko ne ko xaw ma ne ma ne ko bàyyi mu dee ma ko ma ko dafa ne moom gaa di jàpp bàyyi mu dee vraiment boo ko jéem a dàq fii ba kaw laaf yooyu ci lay gis ci lay gis. boo jéem a dugg da ngay gën sa yére ji ndox ma ne ma ne ma ne ma ne moo la sori moo la ndox. ngir ablaye jaam bi dee foofu dina la loolu ne dina la tasbe ko ko lu ñu ñoo bàyyi jee Thank you. dendal sama ndox mos na wax wax ne bàyyi dee fii moo joxoon fii kii moom ñii fii tay dañ ko dëkk ñoom ci laa identifié ne am na am na ñu nekk fii xam nga foo bëri dañ fekk daal ne dañ ko dañ ko fekk mu daw kon loolu mooy cheytaan ñun ñun su guddiwaan trois heures du matin waaw biñ gën a nekk gis ay lamp yu tàkk. ci guy gi guy gi de. waaw mel ni sabar ba ba ci kanam mu fay. guddi gu ne ah ba day tàkk sauf guddi ba trois heures. ba tey bi mu koy def est-ce bi dañu ne wéy na ko di affaire yi ak ceeb bi ñu ko maam jàpp def ko mu ngi ci diggante ànd yi ko doon bi def maam jàpp rek élargi <laughs> man ñëwee wu ko ànd ba mu nekk ko ñu ne man ma am ci digg àll bi. la ko jàkkaarloo ko jàkkaarloo boo amee ci digg àll bi ñu ne kii yëngu am na benn jàkkaar baax kii baax baax kii baax. demoon demoon yëngu yi ma rek laa ko bokk fay ci koñ bi. ma gis ay bëtëx yu bëree bëree bëri bëri bëri. ma ko gis commencé jàng ñooy jàng jàng benn fas. daa mel ni génn bi fi ñuy ñëw kër yi ko ndox bi ñu tuddee ko ba taxaw ko loolu suñu jabar yi boo boo jaaxal dañ dem rek nga am boole. moom ko muy jàpp benn moom ba tey ñu doon booree kon ñu yëmbali ko mooy les gens suñu yàlla maam jàmbaat yu seen si mu ne maam jàmbaat bi ngeen ne ñëw ma ñëw ñëw ma àll kan ma ñëw àll ñëw ma àll man kat dara ñëw ma ci dara ngeen ma ko jóge kii tey bu ñëw ma jóge la may man man dara du mu lii dama dama dama ñëw ñaan ko kon loolu ko Cheikh yéen it ko mën a fàttali lu mën a dégg léegi ñu yàq la loolu moom dañ ko am changement boo nee doxalkat ngay fayee loo am versé ko sa keneen bi rek tàkk ko tàkkaar yàqalagum bil faq te loolu lay dégg ñëpp ñëpp kenn wa yàqalagum bil fahshaay ñaaw la lay la la lay tere na bil fahshaay da wax lu bon dox lu bon jaar wallaahu ni ki yàlla yéen a دون الذين مغفرة مباحة منه وفضلا أمينا والله مدير واسع عليم يؤتي الحكمة يلا له خمسا يلا له من يشاء خمسا ومن يؤتى الحكمة يلا لنا يين كما جمعين خمسا faqad uutiya xayran kasiira jox naa ko xéewal bu wéy wéy wéy xam-xam dana yëkkati ku nekk loolu dara ñàkk jàng dana daal di koo xam ne bu nga waxtaan lool même suñu force d'armée yi njëkk bu ñu la waxee da ngay da ngay jël sa jàpp yóbbu ko bu demee ba nekk général booy moom gànne booy moom général sa seet ñëw di bàyyi ko xam-xam mu yëkkati kii xam-xam moo dalal kii wax nga wàññi ko xikmata buntu ya xayran kasira wa maa yadhakkar illa ulul albab xamul loolu wa maa anfaqtum moo جهال نفقة أو نظرت ولكن من أتميت ناتبني وإن نظر يوم أتميت ناتبني وإن أتميت ناتبني نور النظر فإن الله بك يلا يعلمه خمسكم wama nekkul lil zaalimiina ñeel ñu tooñi ñi lam soow kenn du leen in bu ngeen joxee dara feeñal ko in tubdu sadaqaati bu ngeen feeñalee li ngeen sarakee wala maa mais turuha bu ngeen ko nëbbee li ngeen di joxe joxe ko te yàlla tax wa tuutu wal fuqara yéen jox ko ñàkk ñi wa huwa loolu xayrun lakum moo gën a baax ci yéen yukaffiru ankum min sayyi'aatikum yàlla dana leen baal seen bàkkaar wallaahu mi ngi yàlla bi ma taamaluuna boo dem li ngeen liggéey xabiru قبل ليس عليك هداهم يوم أنت بالروح والكم ليس عليك هداهم مثال داو أمو لابي Bawa bayar, bayar sulanya, bawa bayar. Ya, أبو طالب يجوز سيدنا عبد الله يجوز رسول الله benn saar musul wàcc benn nit bu wétti saar bu lëmm lu dul Abdoulaye baal ma baal ma ñu lay te jàllaw ñaari taw kenn kii ñu jox ko rasulillah te ñu jox ko yëpp ñu fase leen kon yonente bi laysa alayka hudaahum munoo jubal kenn walakin allah alik yàlla yahdi mooy jubal man yashaa'u mu soob wa maa tunfiqu mboolam li ngeen dépasse min xayrin fa li anfusikum seen bopp ngeen ko defal ku def lu baax sa nga ko defal wa maa tunfiqu mboolem li ngeen di dépasse illa ibtigaa wajhillah dara taxul nga dépasse ko lu dul yàlla bëgg ci yow wa maa tunfiqu mboolem li ngeen di dépasse min xayrin yuwafaa man yàlla danaa leen ko man yàlla danaa leen ko fay wa antum yéen laa tuzlamuun man yàlla du ma leen toog si suuf للفقراء am na ñoo xam ne bëgg nañu gàddaay te gàddaawuñu amuñu xaalis amuñu fu ñu war am na ñi na usiru dañ leen dugal fi sabilillahi la yastatiuuna ñoom attuñu dorban tukki fi l ardi يحسبهم الجاهل أغنياء seen dignité duñ yalwaan te amul dara seen dignité moo leen teree yalwaan yaa seen tur bu faral boo ko gisee da nga def ne am na te amul dara pourtant dignité moo ko teree ياسر بن جاهل الأنبياء من التعفف ngir doylu lu mu am doy na leen lu tàffu bi mooy doylu taalibe da nga leen di xamee amul dara bu siimaa seen kanam yi boo ko xoolee ak lu ñu suul rek xam nga ne nii boo defee ne am nañu

ana ñaan ñi yàlla wax ne ku def ku gërëm ba def ko man kaana lillahi kaana allahu lahu ku nekkal yàlla nekkal war na ko lu tax gisoo leen dem nañu ci ma alladina la yasaluna nnaasa ilhafa seen ñàkk lu tax ñu melaw lu tax ñu seen ñàkk seen dignité moom lañu teree humilier humiliation soo ko doon wax ñàkk ci dignité moo gën nga am ci humiliation ñooñu dem nañ maa alladina laa yasaluuna naas ilhaa lu ñu ñàkk ñàkk bi ñu yëg min a taxafu bi seen dignité mu leen koy tere te vraiment mu gis imaam laa yasaafu min baatihi ilaa wa maa tunfiqu min xayrin fa inna allaha bihi aliim voilà ku nekk war nga xam diine bu baax boo dee doxee nga doxee am na loo kër yoo xam ne boo gën a xam ne waaw xam nga waaw boo gisee ñu indi asaka bi ci ay ay ay tànqal fii ci imam moo gën a xam ñu am mooy diine daje koo xam ne leen bu ñàkk am dignité am boo ko tegee yéen wante amul dara ñu naan yéen bu yeewoo day jël yàgg ci digg bi fu ne mu taxani alladina ñi nga xam ne ñu fi duuna dañuy jàppaas ak maanaam dañuy waxee ak maanaam seen alal بالليل في كل البجل سرا مفيجك وعلانية سرا منك وعلانية مفيجك لهم يالله أجره سنبي عند به ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمن وخطئ تجب أن يكون لأنه يفيجك أمن وخطئ تجب أن يكون am na ñoo xam ne nit ñi nga xam xam ne ñii def gis nga mën ñu ne ay gis nga feeñal ko mbaa nga nëbbul ko yow ma ko yamati yàlla dana la ko bay mais nag nëbbul mu ko am am na ñoo xam ne yàggul na ribaa اور وہ نہیں riba dafa am ribal ziyaada mu am ribal fadli mu am ribal nasiya cinq mille francs pour dix mille bu weer dee riba la mooy ribal ziyaada man de ñu naan la ko seen i weer weer dee mu ngi jeudi bu weer dee may ñu ko seen i dix mille riba la seen i bëgg nga ñu xalaat yàlla mën na ko seetlu bu nga dee ak ñoom mu lu mu jàpp jàpp ko yi ci mu ne waaw li ma la joxoon xëy na nga dee ci léegi jox ko tubaab bi ma fekk sama déet di la déet quoi riba la bu ko riba la si yaar Haruna yi lekk na riba ndax man seen mille ko joxoon lu ko jàpp ma ko ma ne ko fenn léegi jox ma léegi trois mille weer dee ma war na yow kii bi ma ñëw ci yow ma ne la ma ma gët salaire bi suñu salaire bi bu tëddee bi ñu mun lekk il faut nga prolonger ma ma doon yéen nga ne ko war na kenn nii léegi nga war a wax kon ñett yi di ko toog ak di ko siyaar yëpp dafa araam loolu moo tax tay dagan boo ko taylee rek waruma taal rajo bi boo ko taalee rek boo ko taylee rek pour fekk ma nga taylee ma mu pour fekk ma nga taylee ma noo ma taylee waruma it liggéey Semua Afrika Malaysia. Itu. Jadi dia courtier dal courtier ah? courtier courtier moo war mooy courtier ah. loolu moo tax banque rival banque vingt cinq pour cent dix pour cent yëpp monde islamique daje na ne deux fois bu mu étudier parce que banque amul woon teel yi ñu ngi ci affaire banque vingt cinq pour cent boo dénkaanee ñu ngi ko dénkaanee mun na réer làkk du du du te dañ koy dégg dégg bu yàggee ñu ñu ko di leen vingt-cinq pour cent dix pour cent loo ma dégg loolu nga ma war a jox li mu la dégg mënu ma la dégg cinq mille nga jox ma quinze mille quinze mille pour benn tey mën na islam yi d'accord ni d'accord bi dafa xaraam parce que mënoo ko dégg mënoo ko dégg cinq mille francs nga ko jox seen biir te lu wér lu lakk lu def booba dencee bu na wér bu na lakk banque boo xoolee fekk sàll bu wér bu lakk te mu lay jox jox la vingt cinq pour cent Pakistan yi ñoom d'accord nañ nga jël ko mais nag ba boobu jëlee na ko def ci aljaga wala nga def ko ci daara wala nga def ko ci dëgg ci waa bien social dana ما مالنا لا تقولوا بما إن كنتم على الذين يأكلون الربا نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الربا ذلك بأن الظالم إنما البيع مثل الربا jaay nga jënd cent franc jaay ko deux cent mu ngi la yomba dencal mu ngi cent franc nga fay ko deux cent njaay ak gis benn la wala gis nekk la ina man lay nit lu riba njaay ak usine ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಹಾರಾಜ ಎರಡನೇ ಜಾಯ್ದಾನ್ دغل ربا دف حرام ومن جاءه موعظته من إذن وعظ من الله وانتهى وله ما سلف وأمره إلى الله دغل وحنا دغل وحنا الحرام وبين دغل دغل الحرام يا خبر وما العالم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يبلغون سيدنا الله ما يشاء ينفعه ما يشاء Kemudian Muhammad punya kelah Al-Bawi Bisaratan Bunyi Khayu Sarahlah Al-Milyon nga dëgg ci marchandise nga yàgg mu bëri lool wallaahu nit yàlla laay yéegu yàlla dugul ku la kafaare asiim asiim mooy koy bakka inna alladina amanu ga yi gëm na amelu saalihaati wa ataamu salaami ka xamal julli ñu ma wa atawu zakaatu ñu dindi asaka lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim ñooñu duñu ragal wala waaw. affaire bi njaay. njaay. waaw. est-ce que foofu am na riba. waaw. non imam Shafi bin Malik deux cent francs boo jëndee deux cent francs mënoo ko jaay quatre cent francs mënoo ko jaay daal deux cent quatre-vingt et quinze. bu ñu jëlee bu ñu ay deux cent quatre-vingt-cinq loo jëndee mënutoo mënutoo jaay mënutoo mënoo jëndee mille francs mënu doo ko jaay tey mille franc nga manqué mille franc imam Shafi ne ko eh d'accord mooy bi loolu man daal dina naan mille franc nee naa waa ji ne cinq mille franc bu waa ji d'accord eh, ma jox ko d'accord ah mais ñun ñun maa ngi double léegi Wow. Voilà, 1950. Voilà, 1995. Voilà. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله waay waay ragal leen yàlla wadaru bay leen maa baqiya min ar-riba riba baaxul bay leen in kuntum mu'miniina bu fekkee ne ñu ngi ngeen fa in lam taf'alu bu ngeen ko deful fa adunu bi harbin min allahi kon dikk ngeen ba combat ak yàlla waaye boobu jéem a إن قلبنا في بحرب الخير من الله ورسوله إن تبتم إن قد توبة فلكم وقوز رمضان لا ولا وإن كان ذو حسن bu fekkee ne nit dafa daan lekk mu osule amul mu lekk la wala mu la ko na lekk na nga ko leeral nga jox ko la dinaa koy sol daa ñëw léegi benn laaj laaj dina mu tudd alquran mooy lekk lekk mu ngi nii moom moo ci topp moo gën a gudd yaa ngi la dina am na muy daal laaj bi day moo gën a gudd ci laaj yëpp فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا ngeen sama xeex xeex bu dal ko moo gën a baax ci waay waay ragal leen bis biñ ci waay turjauna fihi ila Allah summa tuwaffa maa kasaba lu mu fag wa hum ñoom day nganu mu leen toog aaya bu day na ngi nii يا أيها الذين آمنوا يمن يكرد الله رسول الله إذا نبايا الدنيا منكم يا الله فلم تكن إلى أجل مسمى فاكتبوه دقله نبلا لبلي بندل نسيه نبند نسيه ما نبند نسيه فاكتبوه بندلكم ngeen date war na bàyyi na ko kaay bu fekkee man ak yow yow ñu ma lebal ak man ñi di leb jànguñu nañu wuti buum nga bind bind. am na benn waay daf ñu ko ñu enseignant yi bu dee enseignant bu dee la ci bitik bi ñu ne bu rafet lay def ba mu pour un sac de riz. bu weer dee nag nga am génn affaire yi boo yi bëri nga def bam pour. bon biir lu nekk moo xam ne léegi bon la gën bon bu kon fa tuuti bu leen lebante te bindu leen bu ngeen mënul bindal ko yàlla may na ko kaay mu bind bi ak bi wala bu ñu jël wala yaati kaadibu an wala yaba kaadibu an yabdu bu ñu la wooyee ci doon sa dara ñëwal nga dundal ko doon dama ko laa di ma ko ko te ko te ma ko dundal ko ma ko te ka waroo ko fay yàlla na fa ñu tuub ka tuub ka tuub yàlla tuub wala yàlla du bañ wala yàlla du bañ kaati bu ñu ñett ma ko la am na ko ba wala mu tudd ko ko fa واليمن الذي عليه الحق نادي ويكك دف واحد لولا نساك سامي سامي نساك سي لي ما مويك ما ميحق لم لم ما ويكك وليتق الله ربه ولو ولا يقص من النار من اللعب منه شيئا آه ها صار صار يعني صار ايه نقول لكم طيب يلا وإن كان الذي عليه معكم شبيها أو كثيرا مفكر كل يوم الدخلة wala sa biir yàlla defal ko dara loolu la wala wax nga mu sëñ waaye kaan la ne yàlla yi baax mu sëñ yàlla aw day aw laa yàlla day ñu ngi mënul la jiite fan ñu ngi wane ñu ko yàlla kon nag keneen mooy ñëw daal di la jiite daal di la.

daw bi leen papa waaw mooy waaw léegi nag man maa leen topp ma ma topp yow la ne papa ku ma ko rek waaw papa waxal lu la neex ku dee ku dee ñu dem ci gannaawam dama leen neex pagkumagulo. Kamu itu kan yang saling ngejokmak, mama udah banyak. Mak bukan misalnya. Bukan tuh. Jangan dulu. Kamu kok bisa dulu? Iya pak, benar, pak, benar, lagi Udah bangun dulu dan tiga ne dëgg la neex kon laay bi ñu la tudd ci alquran mooy ayat bu tey kama allamahunna falyaktub minhunna alladhi alayhi al-haqq walyattaqillaha rabbahu wala yaghfir minhu shay'an moo ci dara ci فإذا فإن كان الذي عليه الحق صحيحا كيف حق المهم لبلاد أو ضعيفا ولا ضعفا أو لا يطلع الجنين أمور في الدين فليمنع يبليه بالأرض ولتكون موت واشربوا شديدا لأنهم بالله زاد من بذلك وإن لم يكون رجلين فرجل ورجل dañu ñaari góor ñuy seet ba mu amee benn góor ak ñaari jigéen daal di ñëw lépp bu fekkee mu mën di di lekk di lekk di lekk di lekk di lekk kon dagal na mu jox ko demal ci lekk nga jëm na benn su ko ko jëlee benn da nga jël du wax nañ ne dañ indi ay seen dañu indi ko fas moom xamante ne loolu dagal na imam imam Shafi dagal na ñu joxe saa bi mali lebe lebo bi la wut mutu leen ñaari seede ba ila ñaar bu maara lu nay ni bu ngeen amul ñaari góor fa rajulun gëm leen benn góor ba fa ataani ak ñaari jigéen ni man ngeen bi la soxla dugal ki lu lu tax ñu wuti ay seede man kenn ci ñun mën na fàtte keneen ci fàttali loolu moo tax bu ñu dee seede ci ñëpp sëy bu ñu dee seede seede dañuy seet di la tuuti parce que boo ñëwee di yem ak quatre-vingt-cinq nga seede loo xam sëy mu am benn weer dee kan mooy seede kon ay xale loolu la seede ممن ترجم من اسمك مقدما الى ربك ذكر ولا يأبى الشهداء اذا فعلوا سنيكم بالويل من الليل الذي ان ينفذك الدعاء يا بنات سيدي محمد كلما ربه سيدي ولا ربكم ولكن من الرحمة التي كانوا وكانوا بسبحانك اللهم يعبدون ولا تقتلوا صغيرا بربتوتي أو كبيرا مارورا إلى أجله تعمله ذلكم لون أبسط مؤمن ما عند الله يلا وأقوم مؤمنا بالشهادة وأغنى Al-Waqib Tahu Mengisi Jerman Pak Pasca Arab Indonesia Bahu Timur Tampak Wama Najib Farah Luni Bindu Tefaisah Nekbo Luni Bindu Tegel Miagadet Tefat Wama Tertamu Wow Wow Ya ini Masuk Masuk Masuk إلى أن تكون تجارة حاضرة شوف مدلة سكت بان ومطرد بان والمال بان ما من الأنبل المتبين أن أشر دلة يبقى تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليهم جناح ألا تكتب بجد أبو بكر بوجه من مريم وقت ذلك سمعت nga yóbbu sa bopp dina ma jël ñaari góob bopp dina ma fay suukar dina ma fay yëngu kooku ci jox sax la ngeen nit ki dégg sori na te comme ay ñeneen ak ay ma kooku kooku mun nga ko bañ a bind Allah tabbu loolu sax la daal di parce que suñu la boobu ñu Allah tabbu واشهدوا na ngeen cotisé de ila tabayatum bu ngeen jaayante wala yudaaru kaatibun wala shay ki nga xam ne moom moom bu la wax ne ne fayma li ñu kala yi duma wax ne seen man dugg seen am naa fi nga def mooy yàlla yàlla bëgg barke dem lañ ñu yaakaar dafa jaay terrain moo ko bind ko ma lii ñu dem cadastre ba ma la seet ñu ngi dem benn baay ñu génn bambara day moo ni waaw seet boobu seet nii nii rek seet nii rek moom mu wax moom mu wax est-ce que portable bi loolu taal bi loolu ci def portable portable lañ ci taal bi waaw moom bu ñu am seen ak seen seen nii rek nii rek nii rek seen nii rek moom la ñu jox ko daal ñu jël seen la ñu ko wax dama la wax ne seen nii rek nii rek ah loolu ah wax dëgg mu war a mun a poussé mu ne waaw kay daa seetlu ne wala yàlla suuda asaniyata kabira ila ajlihi bu ngeen lebantee bind leen ku mel sabalee ko ku mel gaay ma nañ ma ko gaay gaay ngay ne ko ay mooy dafa leen ci jël moom bind leen bu fekkee nee leen dafa nekk bitig bu jóge nañ jël ci suukar dafa jël ceeb mën nañu bañ a bindal mën nañu bañ a wuti ay seede ndax dafa jege ñu te affaire bi dafa bëri mu xamante ngeen comme mu wax ne mu sukar dafa dafa sukar jël ko boo ko boo ko jël mu ñëw dara ñaan ليس عليكم جناح أمر بكات ألا ترفضوها بمنكم من درجة واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شيء جاي منغا جنلو بسو إمام فالد نابا نكتب جنلو بسو منغا جنلو بسو bind ci suuf pour pour dem suñu maaj bu baax suñu baax bu baax suñu baax gisoo ko mais ci paquet lañu ko paquet kooku mu ndox bi mais wax foo ko ubbi lu ci bind même góor ak lu mu wax da ko jàng doo jënd jël ci ndox il faut nga ubbi napp jël bi bay jàpp ko indi ko marché nga jënd mais man danaa la jaay jël baax yi la nekk ah donc lii ñu dafa rëy soo bay ko daal njaay bi boo ci leen jiitu wax bu génn la bu ñu ko joxul sax nit dafay jiital lu mu gis ñun ci imanu baati boo jëndee ci bitig bi boo génnee dem sa kër jàpp البيعان بثياب ما لم يتفرقا قبل ان الكوبيجي قبل ان كانت موجوده مفكيه نيم فيلو جيبي جيب فوق بعد جيب بتكبي ما بوجد نتنجو تواجو دين وقت انا بلاقي لكم دلو متوقعي دادا إمام الشافعي نرى نمجد مدر mësul jotul mësul waxatu ma alaaka laa ko yóbbu rek ma koy wax wala doo ma leen rek. min maalin albaayi'aan fi qiyaas maanaam yatafakkar ñaari nit nag ñu ñu diggante njëg bi def na ceeb bu ñu tasaar bu ñu séparé wu kii aw fii kii dem jara kii dem kii waay kii dem fii jàpp. كل من كل يمرأ ولا نفعل من تشكل سعيا ولا كبيرا إلى أكله ذلك كل الله يمكن شفاء وإننا عمنا فرنا وإننا تقوى وليس عليكم كلا هم أكا تقوى وإننا من نبي سمعنا من نبي بذيبا من نبي بذيبا وإننا نبي وإذا كبا ngeen jaayante wala yuwaalu kaafirun wala shahid wa in taf'alu bu ngeen ko def fa innahu fusuuqun bikum wattaqullaha ragal leen yàlla wa yu'allimukumullaahu yàlla mu ngi leen xalam wallaahu nekk yàlla bi kulli shay'in aliimun waaw Dinding. Dinding. Dinding waaw dinding waaw. ndax fi ne su fekkee ne amuloo ñaari góor. ñaari góor waaw doy da ngay jël benn góor sax ñaari jigéen. waaw lu tax ñu ne ñaari jigéen. parce que parce que toujours bu ñu defoon parce que toujours jigéen mocc góor loolu moo tax comme que bu ñu defoon gu xale bu góor bi bu mu am un million jigéen bi cinq cent mille la cinq cent mille kon un million kon toujours jigéen mooy wàcce góor kon nag benn góor ñaari jigéen loolu moo tax ñu mën a ah. loolu parce que même bu ñu gisee miiraat bi ñu yëngu kii bi war na mille francs jigéen bi am cinq cent waaw. wala wala tafaalu bii laay laaye tu tay ni laaye moo gën a rëy moo gën a gudd moo gën a gudd ci bi léegi nag wa in kuntum bu ngeen nekkee ala safarin da ngeen a tukki ولم تجدوا أمولين كاتب كوي بند فريحان مقبوضة كيف إيه تعلم فإن أمن وبكن يقولون بعضكم بعضا لم تجد ولم تجد فليؤدي النفي الذي أوتمنا كل أمانة وليتق الله برق الله ربه ولا تكتموا بولن بدي الشهادة ومن يكتمها بولن بينه فإنه بالموت آثم وأبكر لا بل آثم قلبه والله به بما تعملون عليه ilaahi yàlla maa moom maa boole lu nekk fi samaawaat ci asamaan wa maa ak boole lu nekk fi ardi ci kaw suuf wa in tubdu bu ngeen feeñale maa fi anfusikum seen bopp ngeen def feeñal ko aw tubdu wala ngeen nëbb ko ñu xaasibu yàlla na leen leen ko àttee yow alqiyam yàlla ne ci suratul Qaf allahu ya'lamu xaa'inatal a'yuni wa ma tuxfi sudur walladina tad'una min dunihi la yaquluna ashhadu boo xoolee loolu góor nga xool dafa xalaat nga xool jigéen xoolaat ñaari yoon première xool bi ñaar ko deuxième bi moomoo boo ko xoolee loolu dafa jaay xool nga ne loolu sa dem si biir nga dem nga dem moo am looloo xalaat sa xel ak sa xol yàlla na yowmal qiyaamati dinaa koy baax lu ngeen liggéey ñoom lu ngeen liggéey lu ngeen ngeen xalaat dinaa leen ñu xaasibakum yàlla bala mu baal لمن يشاء كوسرا ويعذب مؤمنا من يشاء كوسرا والله لقيام على كل شيء قدير. لأن الملك بن مرة بما أنزل إليه القرآن الكريم الذي أنزل على رسول الله يبتي الله محمد صلى الله عليه وسلم إليكم والمؤمنون يلتي ولم يملك آمن بالله يمنى يلا وملائكته ak malayka yàlla yi wa kutubihi ak téere yàlla yi injil zabur qurbaan الصحف إبراهيم وموسى ورسله لا نفرق من بلده بنور séparé bàyyi na àddin ndëndëroo si yonent bi ñëpp la jëmale yàlla moo leen yónni ñoom ñëpp la ñuy màggale ñoom ñëpp yàlla leen yónni wa qaaloo ñu ne sami'na dégg nañu wa ata'na topp nañu lu ñu dégg wa yow yàlla yàlla la ñu dégg wa ilayka ci yow al masir mujj yi nit ñi yëpp seen mujj yëpp ci yàlla laa yukallifu llahu nafsan yàlla tegul benn mbindeef illa wusaha lu mu attan munoo woor da nga ifo da nga ifeer da nga jabe da nga màngat dogal yàlla teewul kenn ku mu góobul laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha laha ñeel bakkan bi maa kasabat lu mu bon wa alayha ci bopp laha mooy moom wa alayha sa bopp man kasabat laha ñeel bakkan bi lu mu def duwa julli woor lépp maa kasabat ma jëmal dinaa ko koy wa alayha lu mu mooy labate ko pour xeex si laha maa kasabat rabbana yow yàlla laa tu'akhidhna bu ñu bu ñu téye mukk in nasiina bu ñu fàtte def lu ñu war a aw axtaana mbaa ñu جدنا ربك ربنا يويا ولا تحمل علينا إصرا بلن تك دي شيء بنيون كما حملته وفنيت ينور على الذين من قبلنا لما قبلنا كما قال وقرف نمتي غير لك نمور ربنا يويا ولا تحملنا بنيون بيد ما لا طاقة لنا لو أدنى

ñu ñëw ñu taxaw ah mooy sax wala wala ñu ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatah Thank you.